fal ko mu nag nekk sunu njiitum réew ñu dugg si musiba bu boobaa Mauritaniens yi bu ñu tooñee sax lu ndaw ñu daal di geer ñoom Gambiens yi bu ñu tooñee lu ndaw ñu daal di geer ak ñoom parce que Ousmane Sonko la fekk nga xool ko rek di nga xam ne xool bu tuuti la yor xol bu bon la yor alhamdulilahi rabbil alamin lii nag mënutoo nul parce que gis ngay nitu Ousmane Sonko saaga bu ñu saaga sunu kilifa diine yi sunu kilifa aada yi journaliste yi wax procureur magistrat bàyyiwuñu kenn motax yàlla sunu borom nak kharatul ba yawmal khiyam day àtte fi ci aduna élection sans Ousmane Sonko alhamdulilahi rabbil alamin Ousmane Sonko est disqualifié d'office loolu jarna fetu ba yawmal khiyam bañ am président bu tuddu Ousmane Sonko rek doyna jaamu yàlla donc xamna ni sama wax du bari tay ma bay rek encore une fois Sara ki ñun liñ ci mënon bo ba légui ñu ngi wax jamono ji dal nañu jàpp ne que victoire bi jege na. am na am na booy yu bëgg a dugg laaj lay question de mais damaa xamul ndax. non loolu du problème xam nga le problème en est que bu ñu laajee question nañu laaj loo xamante ni farata la ñu tontu leen mais dugg fii ay yaa doon saaga ak yaa doon saaga loolu nekkatuñ si. ñoo doon saaga waaw kay yaa doon saaga moom ku si posé duñ la tontu parce que loolu ñu ngi si woon nekkatuñ si. parole bu parole bu démb bi. patriote yu bëri kontaan na ci ndax waxoon nañ sax damay génn ci affaire yi mais dama xam ne. guerre bi waaw ñëwal ñu ci loolu démb li xew démb. Oh, doo ko jàpp aji aji aji saraq la comme ni ma ko waxee woon man yëguma woon ni yow aji sax war ngeen def live yàlla xam na ko parce que toute une journée démb tooguma. si guddi bi ma ñëwee ba toog gaare noonu rek laa jékki-jékki gis sa live boobu yaa ngi woon si 4000 personnes nga ni que bu eggul 10 000 doo live. ba egg dix après cela oh là là daa ku ma doon woo quoi gars yi dañ lay gis ne nekk ci live mu lay woo téléphone. léegi WhatsApp naa la jëlaat. nga def écho waaw. ok xaaral ma génn bloqué ko quoi ok génne ma génne ma ma bloqué ki ma doon woo génne ma génne ma. waaw yaa may dégg ah. naka la nice. that's cool. nice nice bon de nañ nii ah yi nekk fii di défendre Adji Sarr quoi yow tamit ni nga posé sànq question yi am na solo si François Hélène dañuy ñëw rek ñoom question yoo xam ne posé nga ne te tontu tontu nañ si ay erreur parce que dun François nay nga ko Adji Sarr mi ne Mamour Diallo da doon jàppale Adji Sarr ah, démb Adji Sarr démb dañ ko wax mi ne xamul Mamour Diallo loolu problème la nañ taxaw foofu ñun ña nga waaw ok. daa mel ni baax na. waaw wala mu ah, baax mu daan man lii nii ku ma wooree la. parce que ñoo ko tey quoi. kuy laajte lenn wala lan. waaw TikTok la. waaw euh, euh, Adji Sarr démb kàcc kàddu kàddu yoo xam ne ko wax na ko ne dégg nee na xamul kan mooy Mamour Diallo. waaw te sànq François Hélène Gueye wax na fi sànq. ne Mamour Diallo la ko doon jàppale weddiwu ko ko comprendre parfois quoi. soo na tax xam moom Mamour wala da nga posé question di tontu sama la def ne ko damay laajte ah, d' ah, accord ne xamul Mamour te xam na Mamour Diallo. xam na ko dañ koy François fii la jógee Adamo ñu ne ko waaw daf ko doon jàppale loolu loolu lan lay niroo. waa léegi mën da may non. non le problème mooy xam nit yi ak nit ñi ñëw jàppale la. bro bro tu me laisses parler ok. non parce que boo bëggee mélanger xelu nit ñi tamit duñ la bàyyi nga nga toog fi ñu. yéen ñii yéen ñii mélanger ah? xel man damay ñëw pour leeral. non yow da nga toog di man non non non déglu rek. leeraloo dama Sonko ñaata nañu koy jàppale te xamuñu ko. waaw d'accord léegi ba ba mu ñëw. il faut ngeen arrêté tamit. waaw non ku neex loolu su ma yoon non non amul wax lu la neex parce que ñu ne ni fay ngeen di fenn faut arrêter quand même yéen yéen Sénégal yi ngeen def moom mii la taxaw boo kon loolu indiwul nit ñi. nga baal ma mais TikTok Galsen mi waxul dëgg de. may ma Kaliphone maa ngi ko woon ngir yàlla may ma ko may ma tuuti Sarata xaara tuuti Sarata xaara borom dëj bi mën na jooy dëjëm. fenkat bi mooy Ousmane Sonko moom mii ne xamul Adji Sarr moom mii ne damul boote te ñu am ay ziwam ci Sweet Beauté kon moom moo dàq duul ñëpp. yaa ngi dégg yéen mënu leen jaay làmmiñ bu saf mënu leen wan nit ñi reewande encore une fois ñun li ngeen ñu wax ñu delloo ko seen papa Ousmane Sonko. ñun duñ leen may yotaa duñ leen may dërëm ku dàq feney Ousmane Sonko toogul fii fen ne Mamour Diallo quatre-vingt-seize milliards duulul toogul fii ne Mame Mbaye Niang vingt-neuf milliards fenul et da ngeen di gis ay fenu Ousmane Sonko yoo xam ne du fi be jaaw ngeen bëgg fàtte fen yooyu bëgg ñoo wax ñun ñooy fen kan moo toogoon fii ne moom euh, dem pale du ko jaral xeex moom bëgg na mën naa leen tegal vidéo bi Sonko kon du wax tey muy woote ay xeex ak yu kenn xamut ok soxna si dugg defal sa demande si salaamaaleykum. Euh, dama bëggoon dama amoon question dama posé Sarata ak ñi yéen ñi nekk côté Adji Sarr. est-ce que yéen ngi xalaatu suba aji Sarr c'est-à-dire après procès bi bu jàllee yéen lan ngeen di gis aji saar lan la war a def. parce que actuellement ni mu mel ni nekk fii di génne ay secret Sonko def na li Sonko deful imagine leen juge bi jox benn sentence boo xamante ni. mooy loolu. est-ce que xalaat nga Adji Sarr ëllëgam daal. allo. allo waaw mooy loolu est-ce que xalaat nga Adji Sarr ëllëgam allo. waaw waaw. ko de dafa mel ni kali la. voilà kali soxna si tontu ko. léegi euh, Sila dama am lu ma la bëggoon wax rek ëllëg Adji Sarr loolu ça dépend de Dieu man mënuma wax ci ëllëg Adji Sarr Adji Sarr dañ ko tooñ. dëkk bi ñu dund justice moo fi am loi moo fi am biñ ko tooñee dem na ci justice ak ci loi wax ni dañ ko tooñ léegi nag verdict bi nga xamante ne que procureur moo koy joxe man loolu mënuma cee wax waaye li ma toog fekkee man bu ma doon juge bi man bu ma doon procureur Ousmane Sonko dóor naa ko 40 ans nday Khady dóor naa ko quinze ans parce que man li ma fekkee ma chérie Ndeye mhm. Khady waxul dëgg capitaine Touré waxul dëgg euh, mama waxul dëgg ki nga xamante ni que mooy Alpha Seyni Gueye mi nga xam ni mooy médecin bi waxul dëgg man li ma fekkee version yi joxe Adji Sarr li ma waxoon daaw ak daaw géeg moom la wax ren ca tribunal ba ci li ma fekkee ci procès bii nii jàll nii nii nii Adji Sarr euh, témoins yi dañ leen tëjoon yëgu dégguñu li Ndeye Khady di wax dégguñu li euh, li nga ah, xamante ni que Adji wax na ko te témoins yi ñoom ak euh, ki nga xamante ni que mooy Ndeye Khady ñoo ànd te seeni wax méngoowul man du ma doon juge bi du ma euh, nday xadi du ñibbi jëkkër a nday xadi du ñibbi capitaine Touré du ñibbi Alpha Seyni Gueye du ñibbi Ousmane Sonko lancé naa ko mandat de dépôt yóbbu ko ne ci kaso bu ma paree ma jàkkaarloog ñuy foron ndax mënoo jàpp Sonko di jàppaale ñuy foron da nga yóbbu Sonko kaso ba pare xale bu jóg na pour taal suñu réew ñu jàkkaarloog yow daal di lay ñaf ci kaso bi ndax man ci li ma fekk laay wax sama àqulaay laay taalaa da wax sa diggante ak yàlla ah da wax ba tudd yàlla. léegi man je prends Dieu je prends Dieu comme man je prends Dieu comme témoin maa xamante ni que mooy Alpha Seyni Gueye médecin bi dafa fen mama dafa fen te ñoom ñooñu ñoo bokk kan Ousmane Sonko la ñuy jàppale bi xeex Adji Sarr waaw léegi nag ëllëg Adji Sarr nag loolu ça dépend de Dieu lu juge bi war a def moom dina ko def ñu toog xaar connexion bi baaxul quoi. salaamaaleykum. mais Kali dindi sa bi xaaral ma wàccee la yéegalaat na ko. non non Adamo. waaw allo. Adamo. waaw. damaa may gan damaa may gan yu ma seet si nii mais nekk leen di débat rek après moo tax ma tëj micro bi. débat maa ngi déglu pour ma bañ a réer. waaw wala nga ñëw ci kii bi ñëwal ci sa tiktok bi rek ma jël la ci kaw moo gën. Eh, eh, soxna si bu eh, soxna si yow mu ñuul bi même bala bala bala gaaw ma laaj sarata mi. ok Cheikh loo bëggoon a laaj soxna si. Adamo ziar naa la ci loo nekk maa yaa si jàmm. Cheikh maa ngi lay ziar. non bul wàcc bul wàcc bul wàcc. Mhm. dem na. ci loo nekk maa si jàmm maa ngi ziar waa live bi ñëpp di leen bëgge. Mhm. di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfeex ak ça va di ko ñaanal waa Sénégal di ko ñaanal waa bitim réew ah. maa ngi nii lay woo ak bëggoon oh. naa yàgg dugg ci laay bi nag mooy bi bi bi gel nekkoo ci laay bi xaw ma François Hélène Gueye xaw